salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen waaw di bëggoon a wax ci série maîtresse d'une femme mariée wax dëgg fa yàlla série bu ma neex la ku mel ni Marème moom macha allah mention spéciale pour Marème laal la nag sama mbokk aawa la mais ni muy doxalee moom du noonu moom parce que moom affaire yi da nga gën muus la rek moom ki la gën a muus rek moo la ci moo moo ci ëpp expérience daal nit ki moom muus gi daal moom lépp la moom mooy lépp mooy base bi moom nag. kee ko koo gën yeew yeewu loolooy wax ji moom dafay defee ak fiiraange bu mu ëpp te affaire bi du foofu affaire bi moom intelligence la ngay dawal dawal tuuti naandite waaw man nii awala mais kaawu laal la xaw na ma dal tuuti rek man sama sama wujju noonu dafa xaw a bandi mais dama koo xam a comprendre mu ko woon mais léegi dama koo xam A à Z mënatuma piéger benn côté waaw laal la nag na dawal compréhension rek yeewu tuuti ndax su dul loolu xam naa dina dem moom ak Cheikh seen relation moom manque de confiance dina ci commencé di dugg te am na yoo xam ne jaru ko daal la vie continuer am na yoo xam ne moom pour man du loo xamante ni nii lu extraordinaire la loo xamante ni nii war nga fexe war nga koo dund ba sa digganteel sa jëkkër tey eh, kii confiance bi ngeen amoon ci yéen ñaar mu wàññeeku am na yoo xam ne jaru ko daal pour man waaw asalaamaaleykum TV ah, si Jalika laay wax man nag ah, Jalika daf ma neex ndaxte day koo xam ne dafa gëm yàlla waaye man daal joor li def man rafet rafetluwuma ko dara ndax joor yow nanga nga amee sa xarit ngeen di ànd lu fanaan ci yow mu fanaan ci moom nga dem bay bëggante jëkkëram bay ànd ak moom di dem extérieur xam nga ni lool daal man rafetluwuma ko te itim ah, maire bi ah, goro boo ko yoree da nga leen a war a yemale waaye wërta jël gorom bi nga xam ni mooy góoróom bu ndaw bi e, mu jël ko bañ ko en ko te kooku defu ko dara waaw ndax mareem dëgg mooy njëkk mooy mujj te gis nga mareem yiñ ko doon waxal yépp daanaka nag defu ci dara gis nga tey fi mujjee seex nag dina comprendre dina xam ne xel ni yaayam moom moo yore defet bi ci yaayam la waaw te awa mbeet war naa xam ne wujj moom munta ñàkk waaw awam bi war naa xam ne nag seex du góoru benn jabar la ah salaamaaleykum lu xew waa lu xew tv ngeen baal ma si sama xalaat bu gàtt dama doon joxe sama point de vue la maa ngi lay nuyu la sama soppe démb ak barki démb Lalla bu watee aaway waay bul sosal ñaareel bi ñaareel bi bu ko sosal ci daara maram daal xoolal wàcc ko rek maram xale la day doo ko dugg xamul safaay mariage xamul safaay euh, néegu sëy kon lan la bay ko kii maram bay ko mu def lu ko neex tuutaa dina daal yow da ngaa yàgg durum loolu lan la yow da ngaa durum bu dara doon lay dara sa ajjana bi nga doon continuer di ko waaye ajjana waaye ajjana bi neexoon na trop rafet yi nga doon jënd jënd ko. waaw li ci des nag xoolal ñoom Cheikh Ndiaye ak ak ak Marème ñoom ñaar ñi wàcc leen wàcc leen ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dund seen dund Marème xale la day doog a dugg ci mariage kon c'est normal bu foog mu aj dënn yow nag xoolal neel sa goro man ma ne mu bàyyi la nga sëy sëy bi sa goro amul pour tendance ci dara na la wàcc nga sëy sëy bi ni nga doon defee defee ko. nga bay feebar bi man contre naa feebar bi nga feebaroon ba tëdd hôpital déedéet mais nga maram tey loo xamante ne dalaa ñemete dara xewul feebar bi nga feebar hôpital sama wujj dafa feebar c'est pas normal du tout mais nag nit motul da nga jàppandi say feem la kële dina tiit bàyyi mais loolu di say feem cheikh góor moom góor moom ñëpp xam nañ ko moom waaw dafa sopp lu bees wàcce leen nga seetaan leen yoo xolal toppal ma sax sa disket bi rek waaw toppal ma sa disket sa doom bu jigéen boobu toppatoolal bébé Noura toppatooral ma ko bu baax a baax a baax a euh, di wax nag ci suñu sëriñ si Sénégal suñu sëriñ si ñu ngi leen di ñaanal seen gudd fan di leen ñaanal seen wér yaram di leen ñaanal euh, yàlla wàcce leen fii ngeen mi teg ci yoon mais ci suñu xalaat bu gàtt ñun ñun bi ñun si xalaat bu gàtt ñun jéegi kër yi ñun si suñu xalaatu bu gàtt ñun yaay yi ah, te da ngay seetaan théâtre bi sa doom sax xam ne amaan naam sa doom. mu ngi ciy jàngat ngeen baal ñu ñuy tegal yi moo tax ne novelas yi ñuy tegal chaque jour ngay seetaan novelas ñuy simiku par benn benn say doom nga toog ak say doom di rus sëriñ si baal ñu ngeen bàyyi ñu te sene euh, théâtre bi moom moom moom ku yëg nga ci sa bopp ku ne nga ci sa bopp théâtre bi waaw théâtre bi moom ñu leen di ñaanal rek yéen ñii di joué théâtre bi di ñu ñu koy yàkkamti ku ko karu ci théâtre bi seen nga ko ci YouTube bi di leen ñaanal wér ma leen di ñaan nag ñi déglu ngeen baal ma àq xam nga joolaa rek ndeysaan olofo moom taxu ko set di leen ñaanal jàmm nag yéen ñëpp kontaan naa trop merci beaucoup. salaamaaleykum maa ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ci maîtresse nom di di wax ci goro bi moom moo xaw a doy waar parce que man jàpp naa ne sa jaba sa sa doom bu amee ñaari jabar da leen a war a yemale. donte xëy na kii bëggoo ko sax mais waroo koo fësal mais man Marème laa àndal Marème moom na nekk ci li mu nekk fi mu teg tànkam foofu la c'est que aaw bi moom day xaw a deko ne léeg parce que day won ne dafa diiñ te parce que ku diiñ mën ngaa muus sax uuf sa jëkkër uuf sa wujju uuf sa goro uuf sa uuf sa famille daal ci gàttal te kenn du xam ne sax li ngay def naqari la mais macha allah film bi moom macha allah ca kaw ca kanam. alo asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa film bi yépp kontaan di leen bégee film bi moom amul morom neex na lool man nag maa ngi ci Mariam Mariam yaa ko yor sëyal sëy bi defal ba mu baax gis nga Jalika dama bëgg nga fàtte ko te xam ne moom dafa am lu ko métti xam nga ñaareel awo ah yi ñaareel rek lañ bañ buñ mutoon seen place dox dox gi. seen jëkkër yi duñ ut ñaareel nag nañ waxante dëgg góor da nga koy toppatoo duñ def ba seen jëkkër yi am ñaareel ñu jóg ne dañuy fatti fatti nañ may nit ñi seen jàmm te xam ne sëy bokk a wërsëg la du dara lu dul bokk a wërsëg Mariam fi nga teg sa tànk foofu la man yow laa àndal waaw kontaan naa te bëgg naa lool awo yi bàyyi la ñi ngeen a def nii yéen tamit nag ngeen xijal ñu nag. asalaamaaleykum waa maîtresse d'un homme ma maa ngi leen bu baax a baax. waa di wax ci série bi rek série bi am na solo trop macha allah waa di wax ni rek laal la grande dame bi doon woote daal instant bi moom bàyyi na loxoom carrément te yaakaar naa ni Cheikh takk Marème ci njëkk ak teraanga bu ko nangu woon moo gënoon mu bàyyi ba Cheikh di ko takk par la force ba mu ciy jëlee ay dof yooyu parce que loolu amul benn sens au contraire da koy yablu rek. waaw mu ngi yi def na wér na te teewul Marème takk nañ ko loolu léegi ban chance la am man daal li may wax mooy mu nangu woon mu takkoon ko ci njekk ak teraanga mu am ci woy bu rafet moo gënoon que takk ko moo gën mu bàyyi ko muy dem di mooy moom yàlla parce que même bu ko gëmloo ne ko sax Marème bàyyi naa ko dama ko takk waru ko mën a gëm ndax góor moom ak ku bëgg même bu la gëmloo ne bàyyi naa ko sax yow xamal ne bàyyiw ko même ko takku tamit mu ngi dajeek moom feneen di mooy ak moom yàlla te loolu yëpp bàkkaar boobu yow mi nga tere mu takk ko yow yaa koy gàddu te yaakaar naa jar ko bàyyi mu takk ko indi ko su boobaa ku nekk ni nga mu ne nga wane ko loolu kese la de wujj moom jarul yéen ñi daal. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen jox kenn ku ne sa wàccuwaay di kontaan tamit mbokk mi ci li mu def nii parce que nit ñi dinañ ci mën a wax. liñ ci gis lu baax liñ ci gis lu baaxul bon te ñoo ngi ñaan nit ñi bu ñuy commentaire rek ñu gàttal ndaxte ñu bëri ñooy bëgg a commentaire bon man li may commentaire rek ci kii bi neex na trop man néew na fu may seetaane film yu mel nii ndaxte sama jot moo ma ko mayul ba pare eh, duma ci gis daal importance bu bëri mais bii bi ma seetaanee premier bi vraiment dama topp ba maa ngi ci trente neuvième bi xam nga kon nag euh, gis naa ci loo xam ni euh, luy jàngale la gis naa ci lu bari daal mais su ma sañoon daal bu ñuy wax ñu gën a wax ci wolof bi ndaxte français bi tamit du ñëpp ñoo ko dégg parfois da ngay concentré wu ci film bi ba mu yàgg ñu dugg ci français yàgg ci lool su ko defee yow da ngay perdre sax fi nga tolloon kon nag su fekkee ni ñoo ngi koy déglu ñoom. dañ leen di ñaan ñuy gën a wax baril wolof bi daal ndaxte ay wolof lañ ay sénégalais lañ ñaareel tamit ñu ci gën dugal ci diine bi ñu ci gën a parfois ginnaaw ñun ay jullit lañ bon bu ñuy def dara tamit dañ ci war a sóoraale suñu diine quoi ba pare damay des fois damay seetaan film bi mais damay dem ba naan lii jëkkër ak jabar rek ñooy mën a def ndaxte su fekkee nu Cheikh Diagne moom du jëkkëru kii marem ak lalla bon souvent da ngay gis bu ñuy nekk ci néeg wala affaire yooyu daal day dem ba daal euh, bon foofu tamit di nga xaw a déranger wu da nga naan non kon ñoom lii dëggantaan la ay jëkkër ak jabar la quoi affaire yooyu mais vraiment film bi neex na trop bon ñu ngi leen di encouragé mu ba pare dafa riis waa ok kon jaa ngeen jëf waay waaw salaamaaleykum waa Marodi TV na ngeen def yéen a ngi ci jàmm ça waaw série bi neex na torop macha allah neex na torop neex na torop euh, Marème moom nit ko mën bi ñu ko jox mën na ko torop macha allah mën na ko torop man nag moom aawalaa duma ñaareel aawalaa waaye daal Marème moom mention spéciale ñaareel yépp moom bu meloon ni Marème ah kon ñun aaway moom wax dëgg yàlla am xol dina sedd waaw ñun aawa yi xol dina sedd eh, laala nag moom noon ko comprendre rek xam ni noon rek la mën a taxawee waaw ndax lim naan lu la bett man da musul xalaat ni jëkkëram dina ko takkal wujju waaw mère bi nag moom ragal féete day xañi wërsëg comme moom laala dafa doon dundam moom dund bu baax xëy na nii rek la mën a taxawee waaye daal na xaw a wàññi loxoom tuuti ci mareem mareem nag nit ku baax la wax dëgg yàlla te ku mokk pooj la macha allah macha allah mention spéciale ma xol seet nu trop macha allah jalika nag moom man su doon moom mu fàtte biram mu fàtte biram moom yàlla dogal na ni am na ku baax ku koy bëgg na fàtte biram jéem a ànd ak kooku bàyyi biram waaw te xam ni biram ak copinam boobu yàlla dina leen àtte incha allah na fàtte biram asalaamaaleykum yéen waa li xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee waaye Marème daal bu leen ko catu Marème du Virgile boroom xol bu rafet la ñun waa Suède de ñu ngi bëggee série bi Lala nag moom dofutoon dina jàpp ko palaan la woon premier jour bi mu génnee bi seex takkee ba muy dof dof lu naan lat daaw fase ko dalaa liggéey loolu yëpp planam la woon waaye nag ñu ne yeneen néeg la borom a cay fanaan marem dafa set moom nag moom bukki bu sàngoo dëri béy la seex jaañ dina ci xam dara waaw biram nag moom bul topp jaan bi ba mu rëcc la nga ne da ngay dóor watit bi waaw li nga am boo ko xamut ki ko xam dina ko yor sa loxo te doo ko yëg jërëjëf asalaamaaleykum mbokki waa série maîtresse d'un homme marié man nag wax ci épisode bi passé épisode 38 bi dëgg yàlla dama rafetlu torop dalu Marème parce que Marème dafa dafa jekk ci ëppal mais dafa dal dafa dal vraiment Marème daal rôle bi mu ko jox mi ngi koy dëgg neex yàlla mais dama mere Lalla fi instant bi Sénégal ñëpp ñu ngi koy ŋaññi c'est vrai que film la film la dëgg la film la mais film ne nii kenn kontaanul si Lalla Lalla nag war na xoolaat bopp mujj neexul neexul mais dafa war a xam ne cheikh góor la cheikh góor la te warul am benn jabar musulman la nekkoo catholique donc loolu waroon na ko xaar waroon di bigal Cheikh takk jabar Lalla dafa changé complètement kenn xàmmeetul Lalla eh? moo tax jigéen ñi war ñu di wooyee seen jëkkër yi yenn tur yi ku ko daal àjjana mais ba kii ba léegi Cheikh wootu ko ci turam lay jaar vraiment loolu man dama ci ruus sax waroon na ko ne mel ni mu meloon c'est vrai que wujje ki nga bëgg nga di ko partager keneen sax beneen moom neexul c'est pas facile du nag danga war a mat li nga doon programme bi la nit ñi xamee woon loolu la ko xoolee laal la man loolu laa lay conseil nga bu ñu dugg ci affaire kaccaw kaccaw yu sew yi fi mu ne nii affaire xale rek ngay def defante bëgg topp mère bi mère bi wàllam wéy na comme suñu yaay la nag dëgg la film la mais suñu yaay la mënuma sori ci ay mbiram dama koy bàyyi noonu ak ñeneen gaa yi <laughs> waa mais Jalika Jalika man su ma nekkoon Jalika du mere sàkku xaritam sincèrement duma ko mere parce que joor victime la victime biram la parce que joor dafa nekk nga xamante ne bi dañ ko mayoon jëkkër forcé ko mariage forcé jëkkëram jël ko te neexu ko dégg nga joor dem na ba am fa doom abandonné doomam ndax dafa mel ni dañ koo violé parce que buggul donc man joor joor dafa dafa joor dafa soxla ko assister ko jàppale euh, tu sais gis nga nit soo demee ba nekk ci problème nekk ci yenn situation yi nga jaaxle gisutoo kenn amul wéeruwaay gis nga ki la njëkk a woon affection rek boo def attention dangay daanu ci ay loxo looloo dal joor joor biram du dafa daanu ci piège yu biram biram moo ko teg xam na ne instant joor dafa faible dafa soxla ko ko dimbal dafa soxla amour loolu la mais biram biram moo la gën a xam ni mu def mais joor victime te joor victime mu biram la sincèrement neexul nag sa xarit sa xarit dëggantaan bi nga xam ne moo la xamal si lépp soo amul problème ak sa jëkkër yow yaa mun nga koy wax soo yorul xaalis mu ñëw génne xaalisam def si sa bopp def sa njaboot ngeen di partage bu jour bi nga divorce ak sa jëkkër di jël sa bagage moo la doon jàppale kooku soo xëyee ñu dal sa jëkkër takk na ko non danga ne li mënul nekk ci àddina mais nag Jalika xamal ne lépp mun na nekk ci monde bi ñu nekk lépp lépp mun na nekk ressaisis nga toogaat récupérer sa bopp am nga góor bu dugg ci sa àddina essayer pour voir peut-être ce sera le bon man daal loolu laa amoon ci li mu leen wax vraiment xanaa di wax rek ngeen bañ a déglu gars yi day wax ne série bi neex na yi bëgg nañ ko mu ngi koy suivre. te dafa am chance vraiment série bi li muy waxtaanee ak li muy wax xam naa ne xamaguma fan ngeen jëm de mais yeneen yi ñëw mooy loolu vraiment neex na trop man nag maa ngi tudd di mi nga dëkk Sénégal di njaago pire merci c'est gentil.